jàmm di leen ñaanal xew li bare bare bare ci lu nekk naka ah, man de état bii ma gis day ci Modou Lo am na lu ma ci jaaxal lool surtout mu yaramu nen bii surtout mu yaramu nen bii ma gis ci diggante Siteu ak Modou yéem na ma lool lool lool lool lool xaw ma nag lan mooy problème bi xam naa ne man li may ñemee wax lépp li moom ñëwatuma ko wax waaw li may ñemee wax yépp mais vidéo yi ma gis ah vidéo yi ma gis yéeme na de vidéo yi ma gis yéeme na lool lool lool vidéo yi ma gis nag ci côté Modou Lo ak Siteu yéem na lool waaye rek na ngeen xam ne vidéo bi deux mois avant combat la vidéo deux mois avant combat la te loolu dañ ciy félicité Modou ak Siteu ndax ñoom seen combat dem na ba des deux mois ñu simmeeku shooting kon kooku ñooñu préparé woon nañu seen préparation combat gars yi diggante Modou Lo ak Siteu waa làmb nañ leen félicité waat bu baax a baax a baax a baax a baax ndax état de forme yooyu ñu ñëwoon nañu xam ne deux mois avant combat la deux mois avant combat shooting bi def na deux mois avant combat bi kon nag nañu xam ne yeneen résultat mën naa ñëwaat yu bokkut ak yi Modou Lo wane ak yi Siteu wane. waaye daal li ma ci waxta ngeen mën ko dégg ah ah Siteu renforcer bu baax a baax a baax a baax a baax Siteu amatul nelaw Siteu amatul nelaw Siteu ni nga miser wu ci sa kaw gi nañ ko gën a miser wu ci sa tànk yi kenn du bëri moom du perte équilibre ni nga misé woo ci kaw gi ba indi doole joo xam ne mosoo ko indi na nga misé ci sa suuf ba indi kaw gi leen pour mu la jox suuf bi jox lu toll noonu ndax force bi nga am ci kaw ki suuf moo koy garanti pour nga mën a am assise normale pour nga mën a taxaw ci say tànk. li may wax na du neex benn supporter mais Modou Lo rythme bii mu jël ci niveau état de forme. moo gën a équilibré bi si te yor nag dara jombagu ko waaye nag deux mois dama bëgg état de forme si te bii ngeen gis ak état de forme Modou bi deux mois avec comme avant combat la kon si mën na cee am li mu bëgg lépp lépp lépp ndax si te dafa am lu mu réussir li mu réussir mooy indi na doole ju ëpp bu raw contre la de guerre numéro deux doole ji mu indi woon si te indi na doole ju raw contre Lac de Guiers numéro 2 bu mu indi woon waaye Siteu daa am lu ma lay bàyyiloo xel mooy gis naa vidéo bi gis naa taxaw bi gis naa cuisse d'avant bi gis naa dos bi gis naa lépp mais dama bëgg cuisse arrière yi ak résistance bi nag ci gën a veillé ndax da bëri mbër moo xam ne nii booy bëri ak moom munoo xam benn stratégie lay indi te saa yoo dajee moom da nga war a pare fépp. saa yu bëri moom da war a pare fépp muy Modou Lo ndax Modou Lo du caaxaan ci làmb Siteu nag amul kenn koo mënta daan ci làmb amul koo mënta daan amul kenn koo mënta daan mais combat bi dama bëgg ci vidéo bi ma gis man deux mois avant combat la loo gën a duggaat ci préparation bi nga nekkoon mën ngaa amaat leneen lu gën li nga yor ndax da gis ne Modou Lo état forme bi mu la wan am na lu bari lu mu ci war a rectifier moom xam na ko te gars yi lii ma leen wax ni lu koy dëggal Siteu dafa def interview attaqué Balla Gaye numéro 2 attaqué Aziz Ndiaye attaqué Modou Lo yi Siteu dafa def interview attaqué Balla Gaye numéro 2 attaqué Baye Ndiaye attaqué

Euh, lii ma leen wax nañ ko bàyyi xel bu baax combat bi ñu jëm lambi entraîneur la de entraîneur professionnel bu baax a baax a baax a baax boo boo boo xam ne nii mbër ma da koy jox cër entraîneur professionnel bu mag a mag a mag a mag a mag ndax gars yi dafa am ñaari coach yoo xam ne nii. ñoo nekk ci diggante modlo ak ci te coach yooyu ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa def ay preuve ci làmb gaay yi coach Ngom mooy coach modlo gaay gars coach Ngom mooy coach modlo Lo mooy coach bi nga xam ne nii guddi yi ñu Sénégal bokk na ci coach yi gën a ràññeeku ci Sénégal coach Blo bokk na ci coach yi gën a ràññeeku Sénégal guddi yi ñu toll coach Blo mooy entraîné Eumeu Sène coach Blo Côte Boulot mooy entraîné Eumeu Sène Côte Boulot mooy yow dafa mel na ngaa ñaan de nga dig fi géej Côte Boulot mooy entraîné Eumeu Sène Côte Boulot mooy entraîné Siteu Côte Boulot mooy entraîné doomu dàngul yenn champion yi ngeen di gis fii yëpp moo leen yor musculation ak seen niveau entraînement coach Ngom état de forme bi Modou loo yor état de forme bi Modou Lo yor li ci ëpp ko Ngom la ndax Modou Lo daan na entraîné ci gii mais léegi Ngom la ëpp lu muy pratiquer ci niveau cardio beeg musculation beeg lépp léegi nag combat bi gars yi man état de forme yii ma gis ci vidéo yi bokkut ak yi ma gisoon ci photo yi li ma gis ci photo yi li ma gis ci vidéo yi moo gën a leer ci samay bët waaye ban Modou moo ci war a mën a bëri Siteu ban Siteu moo ci war a bëri Modou moo tax course yi gars yi gën leen a jox gën leen jox course nii li ñu moom ci yéen gën leen a jox course nii ñu moom ci yéen Siteu combat bi li ci ëpp solo li ma gisagum man li ma gis ci yow Siteu li ma gis nii ci yow man li ma gis ci yow course da des carrément te Siteu course bi moom il faut nga jox ko li mu moom. mooy Siteu isaan yi nii programme rek la dese programme rek moo la dese programme d'entraînement rek moo la dese bu dee doole ak force intérieur gis naa ko ci yow am nga doole joxoon na nii amoo ko woon contre Lac de numéro de mais Siteu da nga toll ci finition te finition boobu il faut nga am su bu aaya aaya aaya aay bu mel ni maître boulot moomu nga jox ko li mu moom ñu liggéey résistance bi liggéey cardio bi def renforcement muscle bi. te diin ak contact bi Siteu dafa war a ànd diin contact diin contact Siteu diin contact Siteu fii may wax ak yow nii fii may wax ak yow nii modlo Lo dugg na regroupement gars yi Modou Lo dugg na regroupement Modou convoqué na mbër yi mu war a àndal yi mu war a àndal na leen pour duggook ñoom regroupement ba ñu gannaaw suba la làmb ji ba open de presse ndaw budget bu bari ndax dama seetlu ne keroog bi may dem keroog bi may dem di ko jëli ji contre booy ña këram jàpp naa ne jour boobu la regroupement boobu jeexoon mais gars yi mbëri yëpp Modou loo da leen di loger Lac ñooy reerandoo ñooy añandoo ñooy kontaagandoo ñooy entraînandoo gars yi mel ma tuuti rek maa ngi ñëw yéen ci téléphone bi combat bi nag fi mu jëm daa war a jaral Siteu lu doy waar Siteu combat bi moom a toogoo te leen rek laay tiital Siteu gars yi baat bi may teel ni sax du Siteu dina ko dégg ci man na Siteu fàttali ne roi des arènes lay bëreel na Siteu concentré wu ci Modou Lo na Siteu fàttali ne roi des arènes lay bëreel te concentré wu ci Modou Lo le roi des arènes Siteu titre roi des arènes titre bi fàtte ko te étudier Modou Lo Siteu baatu da ngay nekk roi des arènes da koy génne ci sa nopp bii concentré wu ci Modou ndax mante bi ma gisee say vidéo Siteu benn baat laa am lu ma lay wax ne la félicitation ndax Siteu fi nga jógee ci niveau état de forme contre Lac de Guiers numéro 2 ak état de forme bii nga créé ki sa yaram waaye dafa laaj finition bi mooy Siteu mooy finition wu combat bi yaa ngi ciy dugg dugg te népp noo mën a reyee sa bopp ci sa côté coach ndax Siteu li des ci yow li nga soxla kenn mënula koo jox ku du coaching kenn kenn mënu la koo jox Siteu kenn mënu laa jox li nga bëgg si te kenn mënu laa jox li nga soxla si te li nga fi nga bëgg àgg mënoo faa àgg fii course amul course moom si te moom rek moo la mën a jàllale course rek moo la mën a jàllale ndax Modou Lo mi ngay dégganteel niveau entraînement kontagam cardiowam physique am lépp ci coaching la ko teg Modou ci programme la tënku te Siteu Modou dafa am lu muy daanee ndaanaan yi mooy chaque làmb sita Modou Lo am fraîcheur te Siteu combat bi war nga ko préparer waroo cee daj yenn coono yoo xam ne ni da indi indil métitu yaram yoo xam ne bu làmb jaa sa yaram du joxe normal Siteu Modou Lo mbër yi muy dagante lépp dañuy préparer comme moom mais bu ñu ñëwee stade yaramu Modou Lo mooy gën a joxe seen yaram xam nga lu waral loolu mooy Modou Lo lépp lu mu entraîné ci programme la koy teg te mu ngi sóoraale fraîcheur pour yaramam pour jouru làmb ja mu mën a joxe yaramam mën a naayi muscle bi dinañ ko liggéey te duñ ko teg coono gars yi li may wax nii neexut a dégg de maa ngi wax ak ñi am xel maa ngi wax ak ñi am xam-xam maa ngi wax ak ñi nga xam ne dañuy dund sport maa ngi wax ak ñi nga nii dañuy dund sport ñooñu laay waxal. Siteu baatu komba bi niveau combat bi bis boo ko yanoo ba teg sa yaram loo xam ne ni yaa ko programmé sa bopp ba jouru làmb jaa doo am fraîcheur physique te Siteu dama bëgg jouru làmb ja ni Modou Lo di joxee ndax man daf ma wóor ne ma Modou Lo day joxe cent pour cent man loolu dama dama ko wóor te man Siteu dama bëgg nga joxe cent pour cent comme Modou Lo te loolu dara mënu la koo may mooy nga équilibrer sa entraînement sa contact sa nelaw sa lekk na tolloo si te benn bu ci ëpp moromam bu jour làmb jàpp pour nga joxe dina nekk problème làmb nag dafa naqari waxtaane ak naqari waxtaane làmb dafa naqari waxtaane li tax làmb naqari waxtaane mooy combat bi dafa am fu mu toll te combat bi kenn amagul droit ne diw day daan diw kenn amagul droit ne diw moo mën diw kenn amagul droit ne diw gën a nekk ci làmb ji xam nga tax loolu mooy ci état de forme bii mu ñu wan nekkul état de forme bii daan Modou Lo Modou état de forme bii mu ñu wan nekkul état de forme bi nga xam ne mooy daan Siteu gars yaa ngi dugg ci niveau état de forme yi nga xam ne nii.

li tax mu dugg ci mooy dafa am yeneen kàddu yi commencé feeñ ci yéen yóbbu leen ko daa am leneen lu am ci suuf loo xam ne man mënuma ko wax li may ñemee communiquer yépp loolu ñemeguma ko wax te Modou Lo bokk na ci mbër yi gën a informel ci làmb Modou bokk na ci mbër yi nga xam ne nii lépp lu ñu waxtaanee ci làmb day ñëw ci moom te Modou Lo loolu da koo jot te gars yi lii ma leen wax lii danger bi lii danger combat bi nekk ci benn impact ci benn côté mooy gars yi Siteu benn rêve la am benn rêve te rêve boobu wax na ko ci interview bi mu def li TV mooy damay daan Modou Lo jël Balla Gaye numéro 2 humilier ko. Siteu ne dafa bëgg a nekk roi des arènes ci Modou daan Balla Gaye nekk l'empereur muy la roi de arènes ak l'empereur waaye gars yi Modou Lo dafa xam ne saa yu ko ci tëddaanee ci làmb képp ku mosoon a daan ci làmb Modou defet lay doon ci moom ndax Modou Lo première défaite bi gën a métti ci carrière mooy mbër mu ko daan dem bëri jéeg Balla Gaye numéro de loolu défaite la ci Modou te fii may wax ak yéen nii fii may wax ak yéen combat bi toll na ci niveau boo xam ne nii muy Modou Lo di Siteu ñoom ci seen bopp xamatuñu niveau combat bi fan la toll. moo tax Ibrahima Faye Buzz il faut mu teel a génne interview yooyu interview yooyu il faut Buzz mu a génn ndax li TV génne nañ foto yi génne nañ video yi maa leen ko jox interview yee ci des interview yaa ngi ñëw te interview yooyu saa yu génnee coow lu rëy dina am ci làmb ndax wax nañ ci ay nit yoo xam ne nii loo xam nii ay secret yu doy waar génn na ci waaye lii ma leen wax nii lii ma leen di wax lu jar bàyyi xel la ban Siteu mooy préparé Modou Lo Siteu làmb ji ngay bëri coaching dañuy am solo trop Siteu yaa ngi bëri combat boo xam ne nii dañ ko war a bëri ba pare nga doo ko ñëw isaat te nañ koy bëree ñu ngi koy bëree ca course koy bëree ndaanaan yàlla yi war a ancien mbër yi ñoo lay dar ndax ki ngay bëreel mënoo koo préparé ci benn stratégie ki ngay bëreel mënoo ko préparé ci ñaari stratégie ki ngay bëreel mënoo ko préparé ci ñetti stratégie xam nga tax loolu mooy Modou Lo doon na fi mbër mu daanu mbër war na ko ndombo mu daan ko mbër bëri na ak moom mu daan ko daan na fi mbër ci ay seconde caxabal na fi mbër mbot na fi mbër lépp lu mbër di def mbër Modou Lo def na kon Siteu moomu di préparer Modou Lo ci yan étape la war a mën a taxaw pour préparer Modou Lo mooy benn mbër moo xam ne dinaa ko waxaat saa yooyu wax ay qualité Modou Lo demit danga ko faral te faraloo ko mooy qualité ba rafet palmarès ba daa riche kon nag li am solo ba am solo nañu xam ne Siteu day bëri combat boo xam ne nii waru koo ñàkk ndax opportunité bi Siteu am ci làmb warta ñàkk combat wu titre roi des arènes Siteu warta ñàkk combat tiitu roi des arènes te ki muy bëreel bokk na ci mbër yi gën a complet ci làmp Sénégal Siteu da bari bëri boo xam ne nii saa yoo ko réussiré di nga bëri combat boo xam ne nii ba ilaa yow mi diin dootoo soxlaat ku yàlla bind dara ci akoo suuf mais Modou ci boppam moo la gën a xam ne Siteu daan na ma bari géeg Balla Gaye numéro 2 defet la ci defet la ci Modou lii amateur yi di xaar nag muy interview yi nekk Lutte TV dafa war a génn interview yi nekk Lutte TV dafa war a génn te ni mu war a génnee mooy daa war a génn dafa jot mu génn combat bi nag combat bu doy waar la diggante Modou Lo ak Siteu combat bu doy waar la làmb nag moo ko soxla lamb mo ci gagné waye bokku na ci combat yi nga xamné ni bu jallé wala avant mo jallé di ngeen dégg lu doy war li waajaam coowal lamb nag mënta ñàkk coowal lamb ta ñak xam nga man en général information yi ma leen di jox ci lamb information yu rar la ndax taxawon na la fi leen Ada face ak ki nga xamné ni moy ala Ada ak la de guerre ñu koy dox promoteur yi ko tëgg ñu génn ki télévision taxaw ne lolu amut mooy promoteur yi ko tëgg ñoo taxawoon ci télévision ne loolu amul promoteur yooyu ñoo jaaraat ci suuf ngir man en général da dama bëgg ngeen xam lu tax promoteur yi bëgguñ may wax ndax man dama yokk en seen combat mooy combat bi su waree su ma ci communiqué ne combat bi ñu ngi koy dox mën naa àgg ba sept cent cinquante mille kon combat ñu koy dox promoteur yi du leen arrange ci ciy communiqué du leen arrange ñu communiqué te amaan combat bu gën a boobu boo xam ñu koy dox mooy diggante Eumeu Sène ak Alioune numéro 2 Eumeu Sène numéro 2 combat bi mu ngi taxawee ci Eumeu Sène boobu di ko dox saa yi jubóog Eumeu Sène tey Alioune numéro 2 structure ba dina jubóog moom ama seen lañ ko laaj la laaj dafa bari li laaj dafa bari trop ci combat ba dafa laaj lu takkoo takkoo takkoo takkoo dafa laaj lu takkoo takkoo takkoo ci digganteem ak seen laaj ne prix bu doy waar am na fi tamit beneen combat boo xam ne nii affiché nañu datam amoon na fi benn combat boo xam ne affiché dat ba combat boobu buñ sàgganee du am benn dat ba ndax benn mbër ma dat biñ ko proposé arrangé am na mbër mi nga xam ne ni tey jii may wax ak yéen combat bi ko waxoon fisale nañu dat ba ba pare mais combat bu siiw la nag bu am coow combat bu siiw la bu am coow mais mbër ma taxaw ne na na proposé na date biñ ko proposé arrangé na ko te coow loolu di ngeen ko coow loolu di ngeen ko dégg léegi yàqul mais l'essentiel làmb jëm laay waxee ak yéen fi làmb jëm laay waxee ak xaaral ma xool amateur yi ñan ñoo fi nekk ma làmb leen ndax tey samedi la live bi du mën a yàgg waaw tey tey tey live samedi la dañuy génn dem naa ne ji kafe ñëwaat ndax tey ji ci kanam dinañ sangu bo set comme d'habitude génn laal yéen endroit yi sigi xam nga laal fa café wala ñu laal fa xam nga yéen a gën a xam yéen xam nga yéen a ma a xam daal alors fan ngeen tollu ci interview yi nga xam mom la modlo ci ta def. <laughs> Fadam ni ngi may tegee soog metti na. léegi en tant que en tant que ni nga may tegee soog moo dina allah ci semaine bii ñuy dugg lay génn bu soobee yàlla. mais ndax lan moo tax mënuñ ko mënuñ ñoo mosal dara ay extrait une minute ñu la ko Instagram wala ñu jàll la ko ci doon dégg ndax jot naa ay information yoo xam ne li ta wax wax ko Balla numéro 2. wax ko promoteur non mais loolu. mais mosoon nañu xam nga xam nga nit ñi dañ doon dañ doon nekk di extrapoler wala boog ñii di créer ay événement wala ñii di créer ay wax. pour mën a taali yenn combat wala pour mën a fay yenn combat yi incha allahu rabbi bu interview bi génnee lu bëri dina leer ndaxte xam nga bu ndey mbili gi waxalee boppam loolu bu boobaa day tënk lu bari te incha allahu rabbi surtout bu Modou Lo moom loolu lu bëri dina ci mais man bii lay ñëw dégg bu Siteu li muy tàng tàng tàng tàng bu Modou Lo ko gën a tàng. non bu Modou Lo xam nga bës si boppam moo def interview boobu lii nga xam ne ni moom la nit ñi di wax ci mbedd bi fu nekk nit ñi di ko créer mu doon benn événement wala boog benn engouement am ci bës daf ko ko laaj Modou ci boppam te Modou yi tontu na ci sans problème Modou tontu na ci jaar na ci digg bi. wax na li nga xam ne nii moom foofu la ci toll wax na ci next step yi wax na ci li nga xam ne nii moom loolu la séntu ay podcast la maanaam genre interview la yoo xam ne ni da ngay ñëw toog nekk si sa confort normal ki lay poser question nekk ci confort am ngeen di pose posantey question maanaam du sax ay poser question mais day mel ni ay waxtaan la te loolu la ñu jot a def euh, genre dama gis ne communication boobu bokk na ci li nga xam ne ni guddi yi ñu toll mooy man da ma ñamal ay photo ci mhm. Modou Lo Siteu mhm. ma am ay phase yu ma gisoon te gisaatuma yeneen phase mais mhm. vidéo Siteu bi tey man dama cay jàngatee loo xam ne nii mooy Siteu am na lu mu mësta am ci làmb macha allah macha allah li mu indi nii wan ñu ko li mu wan contre Lac de Guiers numéro deux li mu indi nii moo mën ñaari yoon contre Lac de Guiers numéro deux macha allah léegi léegi ma gis Modou Lo boo xam ne nii nag moom boo bëggee dégg a plafonné plafonné ci niveau entraînement ci Modou Lo la yem. waaw ah waaye des na nag Fadam yow tamit nag. waaw déggoo ah. mois de combat. non deux mois de combat xam nga xam nga yow li nga ko li ma fi may waxee mooy. Ah. mbër mu toll ci deux mois de contrat ci combat dese deux mois. Mhm. nangoo simmeeku may la shooting yow. waaw waaye c'est que daa am loo fàtte. mooy. la li nga waxoon keroog laa lay fàttali ñu mel nii du moom la ñuy andi la vingt quatre novembre bu soobee. loolu waxatuñu ko. mi ngi noonu nag léegi ku may lii tey dalaa mosal waaye li mu nar a andi dëggantaan du bokk ak li nga gis tey. ah. bés bu contact yi dëgëree ku ci nekk delluwaat sa ruqu lolu dóor say contact ni mu waree bu soobee yàlla yow xam nga ne dina soppeeku bu baax a baax. yow imagine rek yow ñu dem ci par exemple trois semaines wala deux semaines des ci combat bi Modou Lo Rose Siteu lëlu John Waar yow mii oh. ñu yónni la ci Modou Lo ñu yónni ñu defaat triplex bu doy yaar ndax duñu fa ndax ndax duñu fa duma ah non ci ah, cere rek ah yóbbaale cere cere non pour maa ngi moom fan yii Siteu ne euh, euh, Abou Seck daf maa woo téléphone Abou Seck daa dugg sama live ne ma. Uh-huh. nee man moom poste caaroy lañ ma may mais buur moom buntu Pikine lañ ko may du sax romb buntu Pikine jëm Fora. buur kañ fi moo gën a problème moo gën a bëri problème ñëpp. te te di koy tudd fu mu newul rek. dama ko mujjee yërëm ma ne moom di koy tudd fu mu newul rek maanaam journaliste moo dem wax fa bu am ci problème bu toll nii. Ah! man de combat bi fi mu jëm man combat yim na ma de. Fadam nag bu ñu fàtte ne combat royal la. mais mais mais niveau. ci la pay-per-view bi fu mu toll. Sénégalais yaa ngi jënd ci co ñu ngi jënd bu baax. macha allah yow bi yow da nga maa xanaa xamoo ne da maa bett sax waaye man ci loolu laa nekkoon nii maa woon ci pay-per-view beeg ñoom seen. da nga maa bett bu baax a baax. maa ci yeneen fi mu ne parce que semaine semaine bii nekk. semaine bi ñu nekk semaine bi ñu jugee semaine bi stop dafa fi ne nii mille à lay dawee mille à l'heure macha allah moo yi mbir yi moom macha allah daal yàlla yàlla nañ ci yàlla jàppale bu baax lépp li nga xam ne ni yaakaar nañ ne moom lañ ci war a def ñu ngi ci xoolal fii làmb jëm hmm. am na yoo xam ne suñu borom li nekk ci fon yi koy fay hmm. li Ibrahima fay buzz créé ci làmb hmm. bokkut ak fa Bécaye Mbaye toogee ci làmb mm-hmm. la Modou Mbaye nekkee ca làmb mm-hmm. bokkut ak la Lamine TV nekke maag buur moom ay umb yu dox lañu ay umb yoo xam ne nii làmb garaawul mais l'essentiel bi am solo ba solo mooy ku nekk nañ ko nangul la mu doon mm-hmm. ku nekk buñ la nanguloo la nga doon rek suñu borom dina yaatal lépp mais interview yi kañ nga ko mën a wax yi ñu mën koo xaar bu soobee yàlla balaa vendredi dina génn. vendredi bële di ñëw. vendredi bii di ñëw. ba ba yéen balaa ngeen a def seen plateau pencum làmb. waaw ndax dañoo rab actualité boobu. mi noonu na na sa na sa xel daal te pencum làmb jii di ñëw Ibrahima Faye bës dañu invité. <laughs> Eh, yéen yéen yéen yéen yéen yéen ah. ah yéen a ngi aj affaire bi de. ah, ah kon kon kon di ngeen waxtaan tamit si drapeau Ibrahima Faye Boz bi. éco la ñun eh, ah, la jotaane. kon baax na éco ko éco ko. ah ndax moom mais moom baax na yow yow yow. <laughs>